à hauteur de 500 000 francs. ak Kebs Thiam am benn jàkk ju ne Géejawaay du manqué maanaam 16 millions pour que jàkk ji ñebe jàkk ji nag yow entrepreneur nga te tabax nañ ko ba ci kaw ah may nañ ma installation électrique yi carreaux yeeg lépp fu mu ne ni ciment ak xeer rek ak béton rek laay toog toog boo ci defee ñaari junni nii rek wala loo ci def rek borom bi fay la ko mu ful. waaw incha allah. léegi kay moom je m'en yow personnellement loolu kay suñu kër ah. moom man ci loolu rek laa nekk. ah waaw cent mille bon un million un million sept cent cinquante un million neuf cent cinquante d'accord Euh, am naa fële Money Express cinq cent mille mhm. am naa ci kii di euh, galasmaane Mané Mbacké mhm. beneen xaalis am naa tamit ci Malick mbay mii ñu dajal léegi beneen mhm. xaalis am na tamit euh, ci sama beneen xarit boo xam ne mi ngi nekk ci biir foir bi beneen xaalis xam naa ne daal lii dina mat à peu près sept millions ok yooyu yi ñu demee ñu calculer ko mhm. par rapport ak leneen yi nga xam ne moom lañu moom moom la ñu évaluer woon mhm. d' accord ñoom sii millions et quelques laa leen war a jox ci liquide mhm. d' accord mais defe naa li ma doon gënal mooy comme xaalis la ñu transformer ko léegi léegi léegi jëndee ko béton ak suuf parce que xam nga man dama yàkkamti. waaw dama yàkkamti trop. Mhm, mhm. ah Usain Bolt laay rawante <laughs> am la ko bëgg defal balaa 24 heures. Ah, jëndee ko suuf ak ah, béton. ah, ah. Mhm. jëndee ko suuf jëndee ko beton jëndee ko lépp lépp lépp lépp rapidement. dem tegal leen ko. ah ba pare wax leen li nga xam ni. moom moo fi des ne bu ñu tolloo ci karo. jox leen numéro bu ñuy woote ñu indi karo yi. loolu mooy nekk concret loo xam ne bu ñu tolloo électricité ñu indi électricité bi bu ñu tolloo ci kule. ñu woote ñu indi ciment bi. Mhm. déjà am na ciment bu dem déjà te nañ dolliwaat léegi léegi léegi ciment. ok d'accord noonu moo gën sax. Hmm. Mhm. kon nag kon ma bàyyi la. Mhm. say chèque ngoog téer rek yow téer rek yow téer rek yow téer rek. <laughs> dañuy leeral rek ah, dañuy leeral rek ndax télé la la te xaalis la. xaalis la te jàkk la. voilà ah, parce que xaalisu jàkk mën nga xëy suba rek. def nii. waaw ah, wóorul xaalisu jàkk la nay miti ñu xool fii suufu géej lu muy jar xool béton lu muy jar salaamaaleykum gars yi baax yi nañ def waay Fafaye nu mu demee ñu ngi siyaare rek naka waat grand ma dëggoon bàyyi la jàmm ku baax siyaare nañ de grand frère ça tabax benn jumaa dañoo bëggoon xam suuf bi ñaata lay jar bëgg xam pétrole bi ñaata lay jar ah. suuf amul prix. waaw day yéeg a a wàcc suuf comme amul prix day yéeg a wàcc mu toll jamono yi. wax ko lu toll. 16 mètres cube mooy jar ñaata. 62 000 62 000 70 moment bii nii moom. 80 mille dañ ko koy jaay wala 90. moment bii la wax moom non moment bii nii. taw bi mën naa baara yoon ba tey dama lay expliqué rek moom. ah ah waaw. moment bii daal 70 mille lay jar. 70 mille lay jar. 70 mille lay jar ok d' accord benn 16 mètres la. Ah. béton la da ngeen koy def fii. waaw déglu ñi dañoo nekk liggéey ah. béton 16 mètres cube tamit. 16 mètres cube. man moo gën pour couleur moo gën quoi. bu ñuul bi 16 mètres cube bi ñaata. damay woo sama benn xarit kooku xam naa ni ay affaire béton ak ciment yooyu lay liggéey. waaw allo. Mamady. waaw man la Boubs. naka mu. waa Tëngéej. ñëpp a ngi si jàmm. bien Mamady. dama nekk ci benn émission bu tudd Mission 24. léegi dañ may euh, yeggaliloo benn jàkk boo xam ne ma nga nekk euh, géejawaay mbotkat waaw léegi euh, dama fa soxla béton jàkk ji dem na ba taxaw dañ ko war a couler dama fa soxla aussi suuf pour ñu couler ko ak raax beeg yu ni mel mais urgence bi urgence bi dama war a yóbbu xaalis uh-huh. ba pare yeggali yeneen affaires yi léegi li ma la doon laaj mooy béton bi seize mètres cube ñaata. cent quatre vingt quatre mooy seize mètres cube bi. mooy seize mille waaw soo ok d' accord euh, man loolu rek nga ma ko man lool rek nga ma ko mën a jaay waaye sama waay nga wàññil nga de wàññil ma de ah. waaw. ok d' accord léegi. da nga ma ciy préparel. ñeent mais dama ko sox ñeent ñeenti camion mais dama ko soxla léegi léegi léegi léegi léegi d'accord waaw léegi dama soxla aussi sable de sable de dune lañ koy wax xawma loolu loo may jaaye benn 16 mètres cube pour man nag ah sama prix bopp la man loolu ok léegi nga préparé ma ci cinq cinq cinq cinq cinq camions. cinq cinq. waaw cinq yi seize mètres cubes donc euh, dañ koy war a livrer léegi léegi léegi léegi ci kanam. donc euh, comme nii léegi yow bëgg naa au plus tard ay seize dix-sept rek ñu daal di daw yóbbu ko dégg nga kon yow daje géejawaay maa ngi lay woowaat léegi léegi ah. d'accord sans problème. allez à tout à ma jël euh, beneen chèque ci biir foir bi ah. rek a defe naa affaire yi daal de ñu jubali géejawaay ñu jubali géejawaay suuf bi ak béton bi. Uh-huh. nee nañu quatre euh, camions béton. Mm-hmm. ñeenti camions béton seize mètres cubes. indi mm-hmm. nañ aussi euh, camion suuf d' moom moo ñu ko jaay wàññil nañu ko nag jàppale nañu bu baax a baax a baax uh-huh. lépp ñu ngi ko defal un million ñu bu ñu demee uh-huh. xool suuf lu muy jar d' xool suuf lu jar xool béton lu muy jar yëpp ah donc cinq camions suuf yi ak euh, quatre camions euh, béton bi seize mètres cubes yëpp ñu ñu ko defal un million. mel ne accueil bu am solo moo am fii Boubacar. waaw ndax dafa mel ne koñ bi yëpp génn nañ daal di defar li nga xamante moom moo di. t-shirt yi ñu sol ak yooyu mu nekk akay boo xam ne koñ bi yëpp. maa ngi siy gis ñu bind ànd defar ànd defar mobilisation bu am solo lañ fi fekk. dëgg la dëgg la dëgg la léegi nag du ñu def lu dul jàll. ànd dem ci imam bi waaw maire ville beeg imam bi ñoom ñëpp ñu ngi fi yéen la ñuy xaar. d'accord bismillah kon ñu ñu au nom de la ville de Guédiawaye ñu ñëw accueillir leen remercier leen. merci ne leen ne yéen a ngi def lu rafet. di ko def pour euh, néegu yàlla. parce que ku yëkkati lu mel nii di ko indi pour ñu terminer ay travaux. Euh, néegu yàlla bu ngeen defal yal na leen yàlla fay. amiin yàlla amiin de l'autre côté en tant que ville aussi on est très sensible. et que vous pouvez compter sur nous. lépp luñ ci mën a def aussi. pour yokk ko mais aussi pour développer une collaboration yéen dinañ ko def en tout cas euh, jàpp nañ leen ci geste bi ngeen def au nom des populations on vous remercie di leen ñaanal yal na yàlla nangu ñaan yëpp surtout ci weeru koor bi